bawol info point moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey bawal info ngeen a abonné sunu chaîne youtube bawal info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu eh, di rafetlu seen ànd ak eh, bawal info tv mbokki nag tey dañoo bëgg a ñëw wax ci ñaari mbir bi si njëkk mooy euh, lu jëm ci conseil des ministres bi ñu def démb bi njiit réew mi def euh, dafa wax ci li nga xam ne mooy service public bi mu ne service public bi dafa war di dox impératif maanaam dafa war di continuer daal di fonctionner administration bi élection yi wurta tax mu daal di bloqué wu loolu ci lañu bëgg a ñëw am luñ ci leeral beneen bi mooy euh, fan yi nga xam ne moom la ñu génn euh, damaa defoon benn jàngat dal di wax ne li ma nemmeeku ci élection locale yi mooy assemblée nationale euh, bu ñu yëgoon ñoom du ñu rejeter proposition de loi bi nga xam ne collectif ànd sàmm jikko yi ñoo ko yóbbu woon mu jëm ci wàllum criminaliser borom ñaari tur yi ndax ndax li warloon ñu wax loolu mooy dañoo gis ne opposition bi euh, ni ñuy campagne wala communication bi ñuy def rawatina fii ci Touba mooy wax askan bi na leen li nga xam ne mooy bëgg-bëggu sëriñ bi wala li nga xam ne mooy bëgg-bëggu kilifa diine yi wala li nga xam ne mooy bëgg-bëggu askan bi mooy ñu criminaliser borom ñaari tur te bureau assemblée national rejeté nañ ko lànk nañ ko. kon bu leen voteel waa Benno Bokk Yaakaar loolu dafa nekkoon remarque boo xam ne dama ko def ci bi campagne bi commencé ma gis na ñu bari moom la ñuy campagne ci opposition bi te ñi koy campagne aussi euh, nit ñi koy wax nit ñi nit ñooñu ñoo ngi leen di déglu te mën naa am njeexital ci élection yi ma ne loolu baaxul ci mën naa yàqal Benno Bokk Yaakaar lu baree bari loolu remarque la boo xam ne man bu ma def la ñi nga xam ne nag ñoo koy campagne gis naa tamit ne man ci sama xalaat am nañ sañ-sañ campagne ko ndax ñoom loolu ñuy wax tamit lu wér la mooy que kilifa diine yi wala askan bi seen bëgg-bëgg mooy ñu criminaliser borom ñaari tur yi bureau assemblée nationale gàntal ko mooy député yi nekk ci benn bokk yaakaar léegi loolu nag bi ma ko waxee dafa am ñu baree baree bari ñoo xam ne nekk euh, Touba euh, maanaam di yëngatu ci wàllum politique bokk ci benn bokk yaakaar ñoom xam naa ne. Euh, dañoo jàpp ne man dama bëgg influencer ñi nga xam ne ñooy opposition bi wala influencer askan wi ngir ñu bañ a teel benn bokk yaakaar man remarque laa def euh, loolu dinañ si ñëw indi ci leeral mais li ñu bëgg a leeral mooy président Macky Sall ci conseil des ministres bi moom dafa wax ci lu jëm ci service public bi maanaam administration bi daal bu campagne bi tax administration bi bloqué wu. loolu nag dafa am lenn loo xam ne dañ ko see bëgg a leeral ndax man administration bi bu bloqué woo sax lu ci ëpp moom njiitu réew mi di président Macky Sall moo ko waral ndax moom yëkkati woon na fi ay kàddu wax ak directeur généraux yi ñu yor ay post na leen ku ñàkk sa gox dinañu la sanctionné loolu nag dafay tax direction yépp administration bi soobu ci wàllum politique kon président Macky Sall moo leen moo leen def ay moo leen politique loo Euh, li ma bëgg leeral mooy damaa gis ne ci Sénégal euh, jàpp naa ne war nañoo soppi aw doxin euh, naam yàgg na fi waaye war nañu ko jéem a soppi maanaam ñun suñ administration bi ni ñu ko politiser ndax jàpp naa am na bànqaas yoo xam ne jërutoon ñu koy politiser ndax dafay yàq lu baree baree bari ci réew mi rawatina bu élection jotee ndax tey direction yi ngeen gis bu paasee. Euh, euh, ministères yi ndax ministères yi ñi ñu def ministre yépp boo dee xool presque mën nañu ay politiciens lañ te ministre yooyu euh, ministère boo gis dafay am dafay am ay ay ay bànqaas maanaam ministère boo jël rek dafay am ay yeneen yeneen direction ci biir ministère bi maanaam comme par exemple tey su mu leen ko mënoon a expliquer mën naa ne tey euh, fu ci mel ni euh, ministère de l'énergie ministère de l'énergie euh, nga ne nga ne ACR wala nga ne Senelec par exemple maanaam beneen bi tamit ministère yooyu yépp seen seen seen ministères yi boo xoolee seeni nit lañ fay dugal maanaam seeni militan ndax yow mi politique ñu def la jox la benn nomination ngir politique da ngay bëgg dangay bëgg am doole te pour nga am doole da ngay jël say jegeñaale yépp dugal leen ci ministère boobu direction ya direction yi nekk ci ministère boobu nga dugal fa say nit te ña ngi fay dugal boo xoolee presque yéenay bokk localité bu ngeen dëkk maanaam yéenay bokk gox ndax dangay bëgg mu jàppale la ca gox ba euh, tey Sénégal moo tax fii nii boo xoolee ministère yépp ministre yépp dem nañ campagne te ministre yi bu demee campagne seen chef de cabinet yi seen dash yi ndax léegi dash yépp presque léegi dañuy politique kon moo tax ministre ministère yi dafay bloqué wu mënut a ñàkk bloqué wu ndax ministre bi si boppam day politique ñam fa def ñépp bu doon sax par exemple tey ministre bi kese mooy politique bàyyi ña nekk sa direction ba kenn defu sa politique nga mën a wax mais moom non seulement dañ koy jël moom ministre bi ngir politique mais moom mu jël moom tim ay nit ngir politique loolu mooy bloqué li nga xam ne tey mooy ministère yi direction yi tamit loolu moo fa am ndax direction yi dañ lay jël ci ab direction boo bëggutoon politique sax maanaam ki la fa nommé njiitu réew mi si boppam moo lay mooy tax nga politique ndax léeg-léeg ndax léeg Sénégal di nga gis benn ministère boo xam ne direction a fa nekk yépp même bu dee par décret la ministre bi mooy fexe ba ba président fal la par décret maanaam naa see joxe exemple yu exemple yu baree baree bari léegi nag direction yi wala ak li nga xam ne mooy euh, société nationale yi ña fa nekk dañ leen fay teg ba pare président wax leen ne leen ngeen politique ba pare wax leen ne leen bu ngeen ñàkkee man ma sanctionné leen léeg-léeg sax loolu mën naa mën naa sax encourager mbirum détournement ndax ki la ne dama ngay defal defal ma politique soo ñàkkee ma sanctionné la te fii ci Sénégal ñun ñu xam ne ñu yor nguur gi lu si ëpp ci xaalis la ñuy politiquer euh, te xaalis moom da nga koy liggéey wala da nga luubal ko loolu moo ci mën moo tax direction yi baree baree bari yéen a fay dégg détournement direction yu baree baree bari yéen a fay dégg détournement rawatina bi élection yu jubsee xaw ma nag tombee waral ay gaaf xaw ma lu xew mais direction yu baree baree bari dégg ngeen fa détournement léegi direction yi moo tax président Macky Sall bu waxee ne service public bi euh, nag continuer di dox du taxaw du bloqué wu. man jàpp naa ne loolu daf koy wax rek comme ni mu ko waxee woon 2019 ndax 2019 waxoon na lu mel noonu waaye moom président mooy encourager administration bi ñu politique ndax campagne bi ñoom non seulement day ñu baree bari dañuy dem campagne ndax soo xooloon tey par exemple tey nga xool fu mel ni port euh, nga xool poor ak port ni mu amee solo port autonome de Dakar tey ki mu dénk poor di Babacar Sadikh Bèye moom candidat la ma ngay def politique euh, jëppal euh, jëppal ci euh, commune boobu Cheikh Gueye nekk fa la Babacar Sadikh Bèye te xam nga Babacar Sadikh Bèye comme day politique kon yéen leer na leen ne port moom ña ëpp ña fay liggéeyee ay nitam la ñuy doon te nitam ña muy doon day xool nitam ñu koy amal njariñ ci wàllum politique nital nit ñu koy amal njariñ nag ci wàllum politique mooy nit ñu dëkk ca gox bu mu dëkk te loolu man sax jàpp naa ne c'est pas normal léegi kon xam ngeen ne moom bu demee campagne yi munu faa bàyyi ñam fa samp te ñam fa dugal da leen ñu si bëri dañ leen di dañ leen fay dugal ngir politique léegi ki jiite port dem na dem politique ki jiite LONASE LONASE euh, Lat Diop moom dem na politique ma ngi Golf Sud li ma expliqué ci poor rek moo am ci LONASE même système bi la Euh, ki jiite LONASE dem na politique te leer na leen ni ñi ñu bëri ñuy dugal si direction yooyu mbirum politique moo tax léegi ki jiite port dem na politique ki jiite LONASE dem na politique ki jiite poste poste gi nga xam ne barki dee moo njaay yéen doon dégg détournement yi ñu doon wax foofu di Ablaye Bibi Baldé moom mi jiite poste léegi moom tamit dem na dem na Kolda campagne yi te dégg ngeen ñi liggéeyee poste nee nañ jëlug yaama neex gi nga xam ne tey moom la fa bii Bibi balde nekk Euh, loolu mu nekk loo xam ne lu doy waar la te ki nga jël nag wax dëgg yàlla yow miñ tabb ngir poste boo xam ne la koo tabb ngir politique njiit réew bi moo la ko tabb ngir politique yow tamit da ngay ay nit ngir politique loolu moo tax administration bi dafay am ay jafe bu campagne ñëwee te c'est pas normal absence boobu euh, Sénégal daf ciy ñàkk xaalis bu dul jeex te ñun suñ administration bi dañ ko yàgg politiser te jàpp naa ne mbir mu ñu war mbir mu ñu war a soppi la waaye fii Sénégal loo am am xam-xam loo am am xam xam te defoo politique presque maanaam kenn du la jël te am na doomi réew bi ñoo xam ne jàng nañ ba am xam-xam waaye kenn du leen jël ndax politikuñu euh, beneen bi wax naa port wax naa lonaas wax naa poste bi bi balde ma nga Kolda crédit mutuel du Sénégal mbay jonn mi ñu ko dénk dem na Ngunjaan di politique kuddu université Cheikh Anta màgget seen dem na Malicounda ma ngay politique Crous Bambey kañ ko dénk Moustapha Guèye dem na Diourbel ma ngay politique Senelec kiñ ko dénk ba euh, Senelec kiñ ko dénk mooy Bitèye euh, Bitèye dem na Kaolack ma ngay politique Bitèye mu ndax candidat la moom tim Bitèye candidat la euh, Senelec kuddu Maguette Sène candidat la Malicounda crédit mutuel bii ma leen wax sànq Mbaye Dione candidat la post bii ma leen wax bii bi Baldé candidat la ci élection yi Lonaas euh, Lat Diop candidat la Port Babacar Sadibé candidat nga dem Sonacos Modou Diagne Fada candidat la Daaru Muxti ma ngay politique te dégg ngeen te xam ngeen ne jamono ji ñoo ngi toll si jamono jënd ak njaayum gerte gi Modou Diagne Fada na ko fi ñukk dem dem defi politique moom ma nga Daaru Muxti di dem di politique te dégg ngeen ñu ne tey am na benn journal bu ko bind ne dañoo fixé woon prix gerte gi kilo bi deux cent cinquante liir naa benn journal bu wax ne Sonacos ñoom deux cent trente ak deux cent francs lañ koy jëndee euh, loolu nag baykat yi ñoom seen bopp ñoo ci loro te dama xam même ñi nga xam ne ñooy tey opérateur privé stockeurs yi tamit ñoom tamit dégg naa prix boobu lañ koy jënde te jàpp naa ne loolu du dëgg du yoon waaye bàyyi nañ fi direction bi dem nañ politique te nee naa leen tamit ministère yeeg ñi am ay dash yépp seen dash yépp presque dañuy politique mën na leen si limal yu bare bare bare bare tey boo demoon tey par exemple tey ministère bu mel ni ministère de l'emploi ci Dame Diop non seulement Dame Diop dem na Jurbel di politique yi waaye daaj ba sax di Amy Mbacke moom tamit ma nga Touba di euh, ki nga xamante ne mooy Doudou Ka moom tamit AIBD aéroport international Blaise Diagne dem na Ziguinchor ma ngi politique yi euh, boo demoon SOGIP galaw Ba moo ko jiite ma ngi Mbacke di politique yi boo demoon TER bu yàggul bii sax SEN TER ki ñu ko dénk Euh, moom tim dem na Tiwaawan ma ngay euh, ma ngay politique léegi daal lii laa leen mën a lima rek ndax mënumaa lim direction yépp te yéen ñi direction bu ngeen si yokk sax euh, bu la neexee ngeen yokk ko ci waaye xam ngeen ne bu ngeen si yokk ka fa nekk moom di ngeen gis ne ma ngi ci ma ngi ci benn bërëb ci Sénégal di campagne ministre yi moom dama leen a jëllale waaw ministre yi dama leen a jëllale ministre yépp fi mënoon naa leen a tuddal turu ministre yi mais su ma leen ko tuddaloon tamit da ngeen gis ne ñoom ñépp dem nañ defi politique ci seeni gox am na si ñoo xam ne sax nekkuñu Dakar dañoo génn Dakar ba ni si ay DG tamit yoo xam ne ñu bare baree bari soo xoolee fi mu ne tey euh, boo xoolee nekkuñu dakaar dañoo dem politique léegi nag lii bu kenn wax ne mun am jeexital ci administration bi force su am jeexital ci administration bi force su am jeexital ci ministères yi ak ci direction yi ndax ñii lañ ko dénk te ñi ko dénk ñu ñu baree bare ñi ña fay dañ leen fay dugal ngir wàllum politique. xam ngeen ne bu ñu demee président di ko fàttali moom xam na ko sax ne dina am jeexital euh, ci administration bi waaye nag bu lii lépp paase li ci garaaw mooy da ngay nekk ci ab direction benn société national société national ba am ay oto maanaam mën naa joxe misaal benn société nationale ami oto am ay chauffeur yoo xam ne euh, société bi national bee leen defay fay wala ministère bi moo leen di maanaam ñoo xam ne ñoom ay contrat ñu leen defay fay ci xaalis réew mi léegi bu élection jotee non seulement ministre bi absenté na directeur général bi absenté na DAGE bi absenté na liggéeykat yu baree bari absenté nañ ñoo ngi fayeeku waaye oto ya ñuy defee campagne ya sa ëpp oto direction boobu la c'est c'est pas normal jël chauffeur direction ba yóbbu euh, te xam nga ki jël sa oto jël sa personnel kooku buñ na la du jël sa carburant ñoo ngi lay nax buñ na la du jël sa xaalis aussi ñoo ngi lay nax ndax euh, oto yooyu muy utiliser rek sa xaalis la ndax bu demoon luye ji ay oto xaalis lay fay journée cinquante mille wala journée quarante mille yaa xam ni nga xamante ni tey moom la euh, euh, tey par exemple tey ku mel ni wàllu Sénégal yeewi yeewi sax ñoom dañuy dajalant ñoom moom dañuy dajalantu participer nit ñi participer jàppale la boo xoolee wàllu Sénégal ñoom am nañu seeni oto Bougane Gueye Dany am nañ seeni oto noonu Bougane def ba ami otoom. bu campagne jotee mu taal otoy boppam jël carburant boppam fay ay chauffeur am buy luy yeneen oto yokk mu luy yeneen oto yokk PDS def noonu Yewwi Askan yi def noonu noonu la Benno Bokk Yaakaar waroon a def Benno Bokk Yaakaar seen chaise ba dañ fa waroon a am seen otoy bopp euh, ñoom Benno Bokk Yaakaar si boppam coalition bi wut seeni chauffeur yi bopp maanaam yow boo nekkee euh, directeur chauffeur bi lay bi lay dawalal danga ko fee war a bàyyi bàyyi fi oto bi comme yow toogoo fi waaye li gën a garaaw da yóbbu oto bi yóbbu chauffeur bi yóbbu carburant bi yóbbu xaalis bi loolu nag mooy scandale te loolu moo tegewul ci dëgg li ma bëgg expliquer foofu mooy Benno Bokk Yaakaar ñoom bu ñuy def seen campagne dañoo war a jël seen oto yi bopp coalition bi wut seen yi bopp seen carburant bopp waaye fii man ñi nga fi ñi ma fi gis ministre yi dama leen a ñoom waaye directeur yu baree baree bari seen auto service yi moom la ñuy jël di ko campagne wala ci direction bi xam nga ne direction yi day bëri oto oto yooyu dañ koy jël yenn si oto yi di si dox seeni yitte di si campagne jël chauffeur yooyu di leen camp di si campagne ndax chauffeur boobu xaalis bi ñu koy fay xaalisu askan bi la euh, léegi loolu mooy loo xam ne li ci Sénégal di ñàkk dafa bëri te lii mbir la moo xam ne mu yàgg-yàgg la te mbir mu ñu war a xoolaat la Euh, kon loolu la ñu waxoon ne dinañu ko wax ci euh, ci mbir moomu beneen mbir mi ñuy jeexale nag mooy fan yii damaa def benn jàngat daal di wax ne man dama nemmeeku ne assemblée nationale bu démb doon tey euh, duñu ñu rejeter proposition de loi bi collectif ànd sàmm jikko yóbbu woon dama ne woon bu démb doon tey duñ ko rejeter te élection yi paasewul ndax xam naa rejeté bi ñu ko rejeté te élection yi paaseegul ma ne dina leen yàqal lu bëri ndax damaa gis ne opposition bi communication bi ñu commencé mooy ñii fi nekk bu leen kenn votel ndax li leen kilifa diine yi sant li leen askan wi sant mooy ñu criminaliser borom ñaari tur yi ñoom dañ koo gàntal ma ne lii la opposition bi di campagne rawatina fii ci Touba ak Mbacke ma ne fii ci Touba ak Mbacke bari na fi ñoo xam ne seen communication bi ñu commencé. mooy dem ci askan wi naan leen li sëriñ Muntaxa bëgg Benno Bokk Yaakaar dañ koo lànk li askan wi bëgg benn Bokk Yaakaar dañ koo lànk li sëriñ Babacar Sy bëgg benn Bokk Yaakaar dañ koo lànk li Njaasaan bëgg Benno Bokk Yaakaar dañ koo lànk li Medina Baye bëgg benn Bokk Yaakaar dañ koo lànk li jàngo bi bëgg benn Bokk Yaakaar dañ koo lànk kon nag bëgg-bëggu benn Bokk Yaakaar mooy foluwaat gàntalal leen ko loolu mooy ab remarque bu ma def léegi nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci benn Bokk Yaakaar ñoom nag ñoo ngi nee naan man maa influencé opposition bi nekk fii ci Touba ak Mbacké amul benn opposant bu ma influencé influencé wu ma kenn ay fee gis ne opposition ñoo ngi campagne loo xam ne baaxul ci benn Bokk Yaakaar te opposition bi loolu ñuy wax lu wér la dëgg la te ñoom am nañ si sañ-sañ campagne ko ndax fan yi dégg ngeen xalif général bu njaasaan ñaawlu na proposition de loi bii assemblée national rejetée dégg ngeen sëriñ Habib Sy Tiwaawoon nee na bépp ndaw bu woteel Benno Bokk Yaakaar wala bu woteel ñii rejeté proposition de loi bu ëllëgee si biir yàlla dina tegi duum ay ay daan yéen ñëpp gis ngeen communiqué bi ci sëriñ Mountakha ba Bassirou génne yéen a ngi dégg lii mooy li nga xam ne moo am Benno Bokk Yaakaar ñoom su dee tey bureau assemblée national dañoo rejeté proposition de loi bi nga xam ne tey ay député ñoo ko fa yóbbu ak collectif sàmm jikko yi euh, buñ ko rejeté nañ assumer ñoom seeni responsabilité nañ assumer seeni responsabilité en tout cas fii ci Touba moo xam euh, Serigne Abdou Bara Dolly la ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi nekk di campagne seen campagne bi mooy dem ci askan bi na leen askan bi jàpp leen ni fii ngeen nekk di Touba.